salaam wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci lii nga xamante ne bii boole ngeen ma ci ma bëgg a yëkkati sama kàddu nag teg ko rek ci ni doomu réew mi laa comme yéen ñi toog ci télé bi ak képp ku ñuy déglu ci réew mi ak ci bitim réew. di nuyu bu baax a baax ñoo ñooñu toog ci plateau bi xëy na yàgg naa leen di suivre waaye gise bi yàlla dogalu ko yàlla nañu dem ba jëmmoon na. amiin amiin bu baax a baax waa kër gi di ñaanal suñu mag bi fi jóge ñaari at a ngi nii muy Sidi Lamine Niass na yàlla seral yaxam amiin xare ko na ci barke ci bi teg ci njabootam loxo. Cheikh Tidiane doomam bi nga xam ni moo ko wutu ci kër gi yéene bu ci bàyyam amoon yal na ko weesu amiin bokk ko mbokk yu baax yi mu ko bokkal yépp di nuyu bu baax a baax sama soppe muy kilifa moom xamante nañu gisante nañu bu yàggul dëgg la si di nuyu tamit le professeur Cheikh Oumar la tudd yaakaar naa suma juumul may faral di déglu lool ay intervention ci plateau yu bare bare di ko rafetlu lool di nuyu bokk yi ci des yëpp nag di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ci réew mi ak ci bitim réew di am gàcce lool tey ak naqar ci lii ma gis mu xew ci réew mi te dara du ci dëgg teguñu ko fenn lu dul ci bëgg a faagaagal nit benn bu jëkk bi ma adressé ko directement président de la république monsieur Macky Sall ma bëgg mu delloo ci xelam xam ni ba ñu koy fal bu ñu xamoon ni fii la ñuy mujj duñu ko fi teg li may wax nag ça n'engage que moi mhm. te lu ma ci góobe gar ko nëbbatuwuma laqatuwuma bu ñu xamoon ni fii lay mujjeeg réew mi duñu ko fi teg ma bëgg mu delloo si xelam te xam ni léppay jeex te ku ko ni woon dina fi toog 2012 ak léegi mu weddi ko ndax plan bu ne tëral nañ ko ko kon su xalaatoon tuuti dina am yeneen doxalin yu mu def lu dul di tëral ay nit di leen comploter ba ñu yegg si fii tey mas mm-hmm. naa ko wax ni ko moom yàgg na booba jóge na ci nguur gi mu nekkoon ñu daje ci benn barab ñu présenter ma ko ma ni ko su fekkee ni yaa ngi gëm sa bopp gëm yàlla bu yàlla ne di nga toog ci réew mi di nga fi toog waaye booba ak léegi ma di ko suivre amoon yaakaar ci moom ndax ñi ko fi jiitu woon ñëpp ku ci nekk def nga fi dara ba dem waaye ay mag lañu ñu woon ñu jàppoon ni comme ndaw la luy door a di juddu après l'indépendance dina yóbbu Sénégal fu ñëpp ne eskay malheureusement tel na pas le cas président delloo sil sa xel te nga seet sa entourage yi fi xew bari na te nguuru yàlla rek a dul jeex bis dina ñëw di nga fi génn ni ci lii wala ci nale li xew nag ñu ne ku ci wax ñu rëq sa ndigg wala ñu jëlale fi mooy troisième mandat yow yaa taxawoon ci devant devant le peuple sénégalais adduna yëpp di la dégg nga waat ni bii ngay jeexale ñu dem ba ci biir feebaru mbuur dugg la mm-hmm. gis nañu la xew ci suñu voisins yi duma tudd tur di tooñ mm-hmm. bu fekkee ni loola moo la ambitionné ba tax nga jàpp ni foofu ak fii ñoo yem yaa ngi ci erreur monumentale mm-hmm. delloo si sa xel ñun ànduñoo ak yow ci lii léegi sax réew mi àgg nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu noppi torop waaye dafa ci am ñoo xam ne ay suñu kilifa la ñu mag la ñu wax nañu ba sonn te mag nag ku ko yëgul mu yëg boppam teg loxoom ci dënnam ni mën a diw looloo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi waaye ñu nag yow nag dootuñu noppeeti insha allahu taala ci kattanu yàlla ak baaxam jërëjëf façon bu ne ñu ngi koy jéem mm-hmm. malheureusement dégguloo ñu lii xew nag li ma ciy indi man li ma ci gën a metti du sax affaire Sonko dégg la metti na ak li ñu ko teg ak li ñu ko wax te li ma jot a dégg yëpp ci média bi dégg ko ci ay nit dégg déglu ko ci ay sources yoo xam ni wóor na ma ni ñii lu ñuy wax xam nañu ci lu leer lépp dañ ko comploté de A à Z mhm. waaye nag olof Njaay nee na kuy gasal sa noonu pax bu mu xóot ndax ëllëg ay tax mën nga ca dugg. fii lu ne xew na fa. yàlla ni patt rek di seetaan. ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet. dafa dënniir lu rek. président dello sil sa xel. président delloo sil sa xel da nga seetaat sa entourage. loolu benn la. bi ci des ma jëmale ko ci ndaw yi réew mi nga xam ne ñu ngi assemblée nationale ñu teg leen fa. Hmm. askan bi teg leen fa am ci ñoo xamante ni bi dara ñorul leen ludul. lépp luy kontaan loo président rek ñu nga ca suba ngoon guddeeg bëccëg te bu leen fàtte ni deretu nit ñi lañu leen di faye ngeen koy lekk dërëm bu ngeen ci lekk billaahi wa kitaabihi ëllëg a gi ñëw bu ngeen duggee bin baan bàmmeel dinañ la dinañ leen ko laaj summa la tusalun na yow ma idin anin naay hmm. alquran la hmm. yéen nag gëmatu leen yàlla ñu si bare bare hmm. wala bu ñu ko gëmee yaakaar nañ ni loolu yëpp ay caaxaan la sama mag Moustapha Niass moo nekk président assemblée nationale. Hmm. depuis la temps mi ngi ci ci ay pouvoir depuis le temps Senghor juuf Diouf lay Wade ba Macky Sall ñëw hmm. ma bëggoon moom itam lépp lu ñu fa indi di ko woote en tant que mag mu fekkee lu bare te yàlla defal ko teraanga lépp lu ko wóor ni lii ay complot la mu bañ caa dugg. te des ak yàlla. Hmm. te xam ni yàlla ñëpp la fi nekkal. beneen bi ci topp muy ñi nga xam ni ñoom la wax ni ñoo yore affaire justice boo ko dee seet bu ñu waxee dëgg ak bu ñu waxul dëgg dafa mel na ñaari Sénégal a fi am. Mm-hmm. et c'est la vérité. c'est kii nga xam ni tey jii mooy procureur sama benn wax rek laa koy fàttali mu bàyyi ci xel ak képp koo xam ni dale ko ca ministre de la justice ak ñi topp ci seen gannaaw. yonent bi dafa waxoon bu yàgg ni attekat yëpp ñett rek lañu ñaar ñëpp safara la ñu jëm rikkuwaay na ngeen bàyyi wax jooju xel te xam ni yàlla du waxantu ndax nit am dëggam ngeen ëpp ko doole ba dëgg ci loolu fexe ba néewal ko doole dugal ko ci kaso yaakaar ni rëcc ngeen xamu leen li xaw kon delloo si leen seen xel man dama bokk ci ñi ñi gëm ni fii ci senegal du ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu intègre am jikko yu baax a baax a baax mm-hmm. ragal yàlla lool te xam ni ëllëg dina taxaw ba tax lu ñu d'accordul wane ni ci waaye am na ñoo xam ni nag lu ñu leen indil rek ñu ànd ceeg moom mm-hmm. def leen ndànk mm-hmm. delloo si leen seen xel delloo si leen seen sago beneen bi ci des moo di le peuple ñoom laay waxanteel di di leen di wu di coono te di leen wax ni yàlla jeexul ndax dafa amoon waykatu arab bu yàgg bu waxoon ida shaabu yowman araada al xayaata fala budda an yastajiba al qadar fala budda lil layli an yanjali fala budda lil qaydi an yankasir kon nag yéen le peuple sénégalais man maa ngi ànd ak yéen de tout cœur maa ngi ñaan xale nañu jéem a def lépp lu ñu mën a def ba dog mbuumu njaam ji ñu ñu bëgg a takkalaat bees waaye ci façon boo xam ne mhm. ñëpp dinañu xam ni taxaw nañu def nañu li ñu war a def waaye ma leen di ñaan léeg-léeg nga romb koo xam ni dafa bokk ci sénégalais lam daan ndeysaan dajale ba am oto mhm. ëpp naa lakk kooku nañu jëflanteeg ñi ñu war a jëflanteel ba ñu xam ni réew mii santul fay santul sàll santul mbàkke santul si santul ay dara njaay sénégal njaay lañu wax ñun ñépp ay doomu senegal lañu ay doomu réew mi lañu bii daal laa ni woon dinaa ci sànni sama kàddu ñu delloo si xel lii ëpp na ñaaw na am na ñoo xam ni ku leen woon ci sénégal wax leen lii daañu ko weddi te man dama bokkoon ci ngeen baal ma ci ñu contrôle Ablaye Wade rëccu naa ko nag maa ngi koy jéggalu bu baax moom waaw lii daal laa amoon ci lu may wax encore une fois di jéggalu ci kàddu gi la ci jublu woon du vexé kenn waaye itamit boo dee nit di xam li xew ci réew mi te bokk ci réew mi nga gis loo xam ni mi ngi am te sànni wocce sa kàddu kenn yeesu la allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim macha allah macha allah si